ndax gis nañu leen ni ñu fànke ak bokk ak ni ñu koy dundalee ak it liggéey bi fi mag ñi bàyyi woon gis nañ ni ko sàmmee muy njaboot sëñ Modou Khary moo tax démb sëñ Ahmadul Makhtar mi nga xam ne moo toog jataay Cheikh Mahamadul Moustapha al Karim démb la fi ñëwoon ci sëriñ bi ngir xam taxawaayu sëriñ Ahmadou waaye xam tolluwaayam diggam ak sëriñ Ahmadou ak xam xataayu màggal gi ak bés bi ni muy demee mu ñëw fi démb fekk si sëriñ bi siyaar ko saafante ak moom. waaye ñaanal ko ci bis bi nga xam ne moom la defal maam bi tëdd gi sëñ Modou Khari waaye sëriñ Moustapha Mbacke moom sëriñ Touba Cheikh Abdou Lahad moom it ñëw na fi sëriñ Sidi moom sëriñ Abdoul Khadir moom it ñëw na fi sëriñ Abdou Lahad Sohaybu moom it yable na fi délégation bu mag sëriñ Cheikh Baara Lahad teew na fi teewal fi sëriñ Moustapha Mbacke may xalifatu Cheikh Mahamadou Lamine di xalifa Cheikh Sidi Makhtar. nga xam ne béréb bii ak dëkk bii gis nañ taxawaay bi nga xam ne Cheikh Sidi Mokhtar bi mu doonee Serigne Touba Cheikh Mat Bamba taxawee na ko ci dëkkub sëñ Modou Khari bii ñaanal sëñ Cheikh Baara Mati lay moomee nga xam ne bis bii mosu ko manqué su borom doole ay leeram tax ci barkeem Serigne Moustapha Mbacke Mouhamed mi toog jataayu Serigne Mbacke soxna Lo moom it ku xam njaboot gi xam ne njaboot gi genn njaboot la ci moom yabal na fi rakkam Serigne Fallou Mbacke. mu ànd délégation bu takku ñëw teewal fi sëriñ Moustapha Mbacke Mohamed may xalifa sëriñ Mbacke Soxna Lo waaye xam ngeen ne sëriñ Abdourahman Mbacke xalifa sëriñ Cheikh Gaynde Fatma moom it ku xam euh, njabootu sëñ Modou Xëri benn la ñuy yabale na fi rakkam sëriñ Ousmane Mbacke mu ñëw teew fi teewal fi mbooleem njabootu euh, sëriñ Abdourahman gépp waaye teewal fi njabootu sëriñ Cheikh Gaynde Fatma gépp ànd délégation bu takku waaye xam ngeen ne Cheikh Mahamadul Bachir. cheikh Mahamadul Bachir mi nga xam ne moom sëñ Tuubaa cheikh Abdou Khadir mi yare kaddu yoon wi moom it ñëw na fi ànd ak délégation bu takku teew ci kanam sëriñ Ahmadou waaye teew fi teewal fi jëmi boppam waaye nag teewal fi njabootu sëriñ Tuubaa gépp waaye cheikh Mahamadul Muntaxa xalif général de kullu murit moom mi yabal na fi délégation boo xam ne délégation bu takku la ka jiite ba mooy sëriñ cheikh Ibrahima Mbakke parcelle di jëwriñam sëriñ bi di ko yónni ci béréb yu mel nii bare bari moom it ñëw na fi teewal fi Cheikh Mamadou Mountakha boole ko andi fi addi yoo xamante ne bii sëriñ bi nee na mi ngi sant baax Cheikh Mamadou Mountakha ndax ñoom dañoo baaxoo di yót sëriñ bi waaye baaxoo woon a jëlee ci sëriñ bi waaye sëriñ bi xam gum xam borom bis bi xam gum xam euh, ngërëmul borom bis bi ak diggam ak sëriñ Tuubaa ak mag ñi Cheikh Mamadou Mountakha wax ne bis bii day képp koo xam ne da cee jëf wala nga def ci wala nga ñëw ci euh, Serigne Touba moo lay fayal boppam ndax borom bis bi fi mu tolloon Serigne Touba ak lim lool la gël Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba kon noo ngi ñaanal baax Cheikh Ahmadou taxa sunu borom guddal aw faram te wéral ko sëriñ Baara Doli moom it yable na fi yabal na fi doomam sëriñ Yadali yabal yabal na fi délégation bu takku moom sëriñ Baara Doli Mbakke sëriñ Yadali moom sëriñ Abdou Dia teew na fi waaye nag teewal na fi sëriñ Maam Balla Mbakke ma xam ne mooy xalifa sëriñ Abdou Dia Mbakke Dioli te ku xam njabootu sëñ Modou Xëri xam ne googu njaboot genn njaboot lañ. sëriñ Cheikh Abdou moom sëriñ Baara Doli yabal na fa délégation bu bari boo xamante ne bii ñoom it mbooloo lañu ñu ñëw teewal fii sëriñ Cheikh Abdou moom sëriñ Baara Doli ak ak sëriñ Cheikh euh, Mbacke Baara Doli ak njabootu sëriñ Baara Doli gépp nga xam ne ku xam diggante njaboot googu xam leen ak kër sëriñ Modou Khary Mbacke Pof di ñoom ñëw nañ fi teewal fi njaboot gépp kon sëriñ baa ngi leen di sant di leen gërëm te di leen ñaanal di ñaan yàlla la taxoon ñu bàyyi seen yit yëpp yabal délégation boobu ñu ñëw fi yàlla na yàlla fay leen ak barki sëñ Modou Khari sëriñ Moustapha Mbacké mu sëriñ Mahmoudan Jobbe moom it teew na fi ah, teewal fii njabootu sëñ Mahmoudan Jobbe ndax ku xam kër sëñ Mahmoudan Jobbe wala mën naa ne ku xam kër Cheikh Massamba xam nga leen ak njabootu sëñ Modou xëri ndax màggal gii xàmmewuñ ko ak màggal ga ñuy defal ma Massamba Mbacké kon sëriñ Moustapha Mbacké moom sëriñ Mahmoudan Jobbe teew na fi sëriñ Jili Mbakke mu sëriñ Mahmoudan Jobbe moom it fi la yendu moomit it ku ko xam ci màggal gi xam nga ko ak pëf di miin nga ko ak fii darul xetma dëkk sëñ Modou Khary Mbakke kon teew na fi moo njabootu sëñ Mahmoudan Jobbe gépp sëriñ Cheikh Abdou Mbakke xalifa sëriñ Cheikh Darou Rahman yal na yàlla dolli ay leeram taas ci barkeem kooku xam Darou Rahman moo pëf di gaaw ak dimanche la sëriñ Cheikh Abdou Mbakke di xalifa sëñ Cheikh Darou Rahman moom na fi. teewal fi njabootu sëriñ Cheikh Darou Rahman gépp waaye teewal fi njabootu Cheikh Abdoulahi Mbacké borom dër bi kon ñu ngi koy sant baax ndax ko xam dëkk bi xam nga njaboot gi ak fii benn lañu waaye xam ngeen ni euh, euh, président Pape Diop bokk gis-gis moom it teew na fi tey fi la yendu waaye ñëw na fii ci sëriñ ahmadu mbakke Eh, siyaar ko yëkkati adday ju takk jox ko ko ne ko nag ko defal ci jumaa ji te xam nga ne sëriñ bi eh, jumaa ji yitteem la yitte joo xam ne képp koo xam ne ñëw nga ba siyaare yitte ba siyaare ci maag rek ñibbi ñor nga ko lool waaye jumaa ji bokk na ci li nga xam ne moo gën a nekk yitteem nee na président Pape Diop bokk gis-gis moom it andi na fi addiye joo xam ne ci jumaa ji la ko la ko la ko joxe sëriñ bi ne ko na ko ko defal ci néegub yàlla bi waaye xam ngeen ne fi la yendu ndax ku xam eh, président Pape Diop xam nga diggam ak sëriñ Cheikh Mbacke Pof di te moom la yendu wax dëgg yàlla sëriñ bi taxawu ko ci teraanga mbooleem comme xamit mu fekk ko fa mu yendoog moom ba léegi bi mu julee takkusaan ci la ñëw fii ci kanam sëriñ Ahmadou Mbacké siyaar ko jox ko addiyaam ci jumaa ji moom it sëriñ baa ngi koy ñaanal ndax xam ne taxawaayam diggam mag sëriñ Cheikh te sëriñ bi nee na kenn kum jàpp ci njaboot gi rek jàpp na njaboot gépp ndax njaboot sëñ Modou Khari gépp genn lañu kenn koo téye rek téye nga ñëpp kon sëriñ baa koy sant baax moom Pape Diop euh, bokk gis-gis ndax wax na sëriñ bi ne ko élection yi ñu jëm da ci ñaan suñu borom mu nekkaat mairie bu ndakaaru loole nag bis bii mu ñëwoon tey ak borom bis bii mën na lu ne noo ngi ñaan suñu borom lim fi fas te ñaan ko fi yal na ko yàlla nangul barkat cheikhul xadim kon Serigne Cheikh euh, mi ngi koy sant bu baax waaye di ko sant ci turu sëñ Ahmadou Mbacke mi nga xam ne mooy xalifa sëñ Modou Khari ndax li ma wax léegi rek sëñ Ahma képp koo xam ne ñëw na fi ak comme ñëw ci njaboot gi rek mel na ne sëñ Ahmadou Mbacke la ñëwal. kon Pape euh, Pape Diop sëriñ baa ngi koy sant baax di ko gërëm di ko ñaanal Mously Diakhaté député moom it teew na fi ànd ak délégation ku xam euh, soxna Mously Diakhaté xam diggam mag sëriñ bi moom it mu nekk ci président de la république Macky di ko taxaw di ko jàppale di ñaan yàlla yéen a jëm am moom ci président yal na ko si yàlla defal ndam barke Cheikhul Khadim sëriñ Fallou Hamdi ak njabootu sëriñ Modou Ajara ñoom ñëpp. Euh, sëriñ baa leen sant ñëw nañ fi màggal gi def délégation bu takk ànd ak njaboot gi ñoom it sëriñ baa leen sant di gërëm di leen ñaanal gouverneur de la région góor gi mbay sëriñ baa ngi koy sant bu baax ndax nee na bi nu amee ndigal ci woote màggal gi ñu yëgal ko ko ànd ci ak moom ci nañ daan ànd moom mboolem loo xam ne waxoon na ko ci màggal gi sëriñ bi nee na def na ko sëriñ baa ngi koy sant bu baax di ko gërëm di ko ñaanal di ñaan suñu borom sàmm ko te taxawu ko ba foofee mu nekk te nekkal fa askan wépp yàlla defal ko fa ndam ba la muy wut ak la muy bëgg yàlla jotal ko ca sous-préfet bu ndaam monsieur Mar sëriñ baa ngi koy sant baax di ko gërëm moom it mi ngi ci jataay bi ndax xam ngeen ne ku wax Touba ku wax ndaam wax Touba te ku wax Touba wax pof ñoom ca Modou Mbacke Fall ba nëgëni bisub sëñ Modou xëri mosuñu ko manqué ci taxawu ko ak ànd ak njaboot gi ndax kon euh, sëriñ baa ngi sant baax moom monsieur Mar ci taxawaay bi yàgg na fi lool waaye li muy yar ab service ak li mu fi yàgg-yàgg lépp wanewut benn yoon ak yàkkamti wala dara la mu wane rek mooy wane ne nun ay taalibe rek lañu te saa bu nu xasee ñëw loolee sëriñ bi waxoon ab taalibe saa yu xasee am ndigal euh, saa yu xasee dégg ndigalu seriñ bi day wuy ji waaye ñoom ñi it saa yu ñu xasee ñëw ci seriñ bi euh, lu leen yitte yitte dab-dab dun dem mukk te ndigalu seriñ bi ak li ñuy sàkku sëriñ bi sëriñ bi amu ko ba ko dellu kon monsieur Mar sëriñ baa ngi lay sant bu baax di la gërëm di la ñaanal su préfet bu Kayal euh, sëriñ Seex ñing sëriñ baa ngi koy sant di ko gërëm ndax moom it ku xam pof di ak Kayal benn lañu boo taxawee fii di seen Kayal boo taxawee Kayal di seen pof di ñoom it lu ma sa xew ci dëkk bi ñoo fi njëkk ñoo fi mujj sëriñ baa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di leen gërëm sëriñ Seex Bambaali muy sëriñ Seex Madina mi xalifa sëriñ Mbàkke Madina yàble na fi doomam sëriñ Seex Gaynde yabal na fi Serigne Cheikh Gaynde mu teew fi teewal fi njabootu Serigne mbakki Madina gépp kon jàpp naa ne buñ tuddee Daaru Xudóos bu kenn képp ñëwoon Daaru Xudóos gépp ñëw nañ Serigne Cheikh Mbacké Bambali di Serigne Cheikh Madina Serigne baa ngi koy sant bu baax di ko gërëm euh, di sant it bu baax Serigne Moustapha Madina moom it teew na fi Cheikh Mahamadul Mourtada Mbacké moom Cheikh Mahamadul Fadal muy Cheikh Mourtada Juma teew na fi teewal fi njabootu Cheikh Mahamadul Fadal gépp Serigne baa koy sant bu baax di ko gërëm te di ko ñaanal waaye sëriñ Jili Mbàkke mu sëriñ eh, Modou Moustapha Fadilu mu sëriñ Modou Boussa Dieng teew na fi teewal fi njabootu sëriñ Modou Moustapha Fadilu gépp sëriñ baa koy sant baax te di ko gërëm te di ko ñaanal njabootu sëriñ Darou Assane Ndiaye eh, sëriñ baa ngi leen di sant di leen gërëm sëriñ Abdou Khadir Ndiaye ma nga xam ne moo toogee ab jataayam yabal na fi délégation bu takku sëriñ Jili Ndiaye jiite ko ànd ak njabootu sëñ Darou Assane Ndiaye ñëw nekk ci kanam sëñ Ahmadou ak njaboot gi sëriñ baa ngi leen di sant mi ngi leen di gërëm mi ngi leen di ñaanal suñu borom mu dool leen ak sàmmu te dool leen ak taxaw ba seen yéene ak seen mébét ci liggéeyal euh, euh, sëriñ Darou Assane suñu borom dooli seen kàttan bañ def ko ni ko bëggee sëriñ Baara Bousso moom it kenn ku nekk xam na ko ci yoon wi bis bii ko manqué lépp loo xam ne xew na dana bàyyi ay yitteem ñëw àndandoo ak njaboot gi Cheikh Mouhamadul Bachir Mbacke teew na fi. moom bokk ko ci njaboot gi sëriñ jiili Mbàkke gis nañ teew na fi ak kilifa yu takk yoo xam ne njaboot sëñ Modou Ajara la nga xam ne tey mën nañoo wax ne yoon wi kenn desul tey kon sëriñ baa ngi sant ñëpp mi ngi leen di gërëm koo xam ne tudduñu turam xataayu bis bi ak it jataay bii kenn ku nekk xam na ne ku wax ku miin cérémonie màggalu sëñ Modou xëri xam nga ne màggal gii defuñu ab cérémonie ay bokk ñoo baaxoo fu ndaje waxtaan am sëriñ it moo baa moo baaxoo fu mu wootee ay njabootam ba mu dajeeg ñoom mu waxtaan ak ñoom rawatina nag nga naal naal wu toll nii naal wu rëy wu nii di néegu bu yàlla te yéen a ñëpp jariñu ci néegu bu yàlla bi moo tax jataay bii sëriñ bi di ko def kon sëriñ baa ngi sant képp koo xam ne tudd nañ la ak koo xam ne tudduñu la di sant it bala maa joxe kàddu gi organe de presse yi nga xam ne keroog bi ñu defee avant première bi donte ne ñoo bokk liggéey bi man ak ñoom ñu bokk liggéey bi. comme niñ te niñ koy liggéeyee ma bokk ci ñoom waaye njaboot gi it 2007 euh, ba nëga nii ba may nekk rajo Dunia ba nii ma nekk ci Mor Talla ci bennoo ak site internet yi nga xam ne nekk naa ci lu ñuy jëflu ci bërëb bii nga xam ne moo di darul ma di dëkku suñ Modou Xari ñu ànd ko ak ñoom di ko taxawee ren jii bi ñu defee avant première bi pare sëñ Ahmadou ak sëriñ Moustapha ak sëñ Xaadim mi nga xam ne moo yor seen kàddu mu nekkoon ci ay yitte ak sëriñ Cheikh bi ñu bokkee daje waxtaan ñu jël lañ daan def lépp boole woon nu ak bokk yi ñu àndoon ak ñoom liggéeyu màggal gi ci rajo yi ci télévision yi ci émission yi ñu àndoon ko ak ñoom di ko coordonné ak ñoom ba jàpp nañu ne euh, ci sunu gis-gisu bopp lan ñu ci santoon def nañ ci suñu te lay kattan ba lañ ca man ak lañ ca mënut boole nañ ko ca sàkku ngërëmul sëriñ bi ca loolee loolu kon noo ngi sant rajo yi tàmbalee ko ci rajo Dunia bi nga xam ne fa ci rajo Benno FM bi nga xam ne ca la ñu nekk sëñ Mor Talla Fall ko keroog bi ñu toogee fii damaa wax sëriñ bi ne ko bi ñu defee avant première bi man man damaa joxe émission fii ma toog jotaguma borom rajo bi waaye mel na ne jot naa ko ndax émission ba ma yor muy jaar jaare mag ñu baax ñi ak bay wax ci daara mën naa ko joxe fii ma toog te su ma jotee jëwriñ jiit yaakaar naa ne noonu la koy ànd ak man ndax lay discrédité mu jëm ci màggal yi maa ko yor fii lañ leen jox jataay bu yaatu ñaari waxtu ñu waxtaane sëñ Modou Khary bañ fa jógee ñu dem ci rajo wal fajiri ñu ànd ak nun ci avant première ba ak ca annonce ya ak ca émission ya ba nañ ko sakk woon ci ñoom ñu defal ñu ko ñu dem RTS bi ñu demee it ñoom it nañ ko sàkkoon ci ñoom ca yëgle yëgle ya ak émission ye ñu ànd koog nun ba nañ ko bëgg népp ñu def koog nun sant yi site internet yi nga xam ne ku miin jataay màggal gi miin nga ko tàmbalee ko ci istiqaama sëñ Moustapha Ndiaye mi ko jiitee ak sëñ Abdoul Baax yi ba ñu dalee màggal màggal geeg léegi waxtu nekk ñoom ñoom ñoo koy ànd ñoom ñu ngi leen di sant baax di leen gërëm di sant Rafa sëñ Mourtala moom it ñu koy sant bu baax moom mi xam ne mooy jiite Rafa ak bokk yi nga xam ne ñoo fi teew muy Teranga TV ak Seexaw gi TV ñoom it ñu ànd liggéey bi ak bokk yeneen yi nga xamante ne bii euh, ñëw nañ ak ñun seq ak ñun liggéey bi ñoom ñëpp ñoo ngi leen di sant baax di leen gërëm te di leen ñaanal ndax kat comme sëriñ bi dañoo booleek ñoom ñu ànd ak ñun te àdduna ak yéeg la sama wayjur bu baax wa sama sëriñ bu tedd ba daana ko wax muy sëñ Modou Makhtar yar na yàlla doon leeram na ci barkeem nee na adduna ak yëg la ku la yëg da koy yëg ku la jàpp nga jàpp ko ku lu man yëg nga nii way yëgoo gaa lu man bañ a nii wa atta la jàpp da koy jàpp ku la yëg nga yëg ko te bis bii day bis bu nu fonk la bis bu nu jàpp la bis bu ñu yitteel la xàmmeewuñ ko ak bis bi nga xam ne ñetti fan ci décembre war nañ ko amalal sëñ Seexaw Balla ca Daaru Manaan la Balla xàmmeewuñ ko ak moom ndax léegi maa ngi koy wax sëriñ bi démb ci guddi laa bàyyi koo daaru ma naan te bu ma yàlla mayee ñu bëgg fa laa bëgg a fanaani ca màggal ga ngir wàccaay wa ak lañ ca war a def kon fonk gun fonk bisu sëñ Modou Khary ak njaboot gi moo tax ñu am ndigal ci sëriñ bi ngir ñëw ànd ak ñoom bés bi buñ noppee delluwaat ci ndigalu sëriñ bi ndax kat sëriñ bi moo ne woon bu leen def wala ngeen wax wala ngeen jëf te jëfoo leen ko ci ndigal laa tax zayen bi xëyri isni fal isnu sartan habri shalni kon jëf ab taalib li muy ko jëfe ci ndigal loolu rek ko waral kon Mbacke sëñ Ahmadou ak njabootu sëñ Modou xëri noo ngi tàllal suñu loxo de ci yéen ak bokk yi ñu seqal liggéey bi di sàkku ci yéen ak ñaan wax naa sëñ Cheikh nee naa ko njabootu sëñ Modou xëri ca 2007 2006 sëñ Moustapha Mbacke mii toog du ma dañ ci di ko wax ndax wala fi sax day wax naan ku la abal ay bëtam fu la neex ngay xoolee waaye yoon wi dafa am lu fi baaxoo. ndax nit bu dee as gor seexoo bal daana wax ne as gor ku ko teral tëral ko ku ko toroxal tuxal ko bu ñëwee ca bërëb ba ca rajo ba sëñ Mortalla boole woon ko ak man boobaa ak léegi di fukki at ak juróom-benn ci màggal gii kon man naa man man baaxuma de waaye jikkoom ju rafet ak mbaaxam moonu boole ak moom la ñu téye ba boole nag njabootu sëñ Modou Khari kon duñ ko fàtte te tey ni mu ñu téye woon ba jàppe nañu ku sëñ Modou Khari am jàppe nga noonu jàpp nga noonu ginnaaw yàlla ak moom sëñ Moussa Mbacke njañ mee la waaye nag ba tey ñii nga xam ne moom la seqal liggéey bi muy njabootu sëñ Modou Khari waa kër sëriñ Ibrahima Mbacke njurul sëriñ Afe Mbacke nekk ca bopp ba waa kër sëriñ Amidou Mbacke sëriñ moodu Mbacke nekk ca bopp ba ànd ko ak ay rakam waa kër sëriñ Abdou Karim Mbacke sëriñ Xaadim Mbacke jiite ko ak ay rakam ak magam sëriñ Abdou Khadir waa kër Cheikh Mouhamadou lemin buñ ko tuddee mooy sëriñ Ahmadu mooy sëriñ Moustapha ak mbooleem ñi nga xamante ni teew nañ fi muy mbokki taalibe ak suñ mbokki bopp waa kër sëriñ mbokk sëriñ Cheikh Fall Dia sëriñ Bachirou Dia teew na fi teewal fi njabootu sëñ seex Fall Dia gépp kenn ku nekk xam nañ liñ bokk ak moom kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm ah sëriñ Alaaji Baara Bousso mi nga xamante ni Touba moske sëriñ Ahmadou nee na mi ngi koy sant di ko gërëm ndax lépp loo xam ne xewle nañ ko teew na fi teewal fi ak njabootam sëriñ Cheikh Bousso Oustaz Kasalika ñëw na fi yebal fi ak njabootam ñu itam sant suñ bokki dëkkandoo yi mel ki Daaru Rahman loolu sax sëriñ Mourtala mi nga xam ne moom lañu dénk dëkk bi moo ci waroon a wax waaye dañ ko yónni ci yeneen jotaay kon ñi ngi sant ñi nga xam moom lañ dëkkal ñëpp di leen masawu di leen baalu ak di sant itam ñii nga xamante ni ñoo taxaw woon bis bi ci wàllu sécurité yi kon man nañ leen sous-préfet def na lépp monsieur Mar sëriñ bi mi ngi lay doolee sant di la gërëm noonu ma ko waxee woon ci gouverneur de la région ñëw na fii seet si sëriñ Ahmadou toog fi diir bu yàgg seq ak moom ay teraanga sëriñ Ahmadou jàpp ko jàppale ko teral ko moom itam lépp loo xamante ni dige woon na ko ci bis bi def na ko sëriñ bi mu ngi koy sant bu baax a baax kon mbooloo mi sëriñ bi mi ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di leen ñaanal jàmm te itam ñuy ñaanal sëriñ Ahmadou Mbacké mii nga xamante ni moo yore liggéeyub sëriñ Modou Khari bi suñ borom kàttanal ko ba lépp lu yéenee liggéey ci yoonu sëriñ bi suñ borom jàppanal ko ci barke Cheikhul Khadim mi ngi leen di doole waxaat lii nga xamante ni sémb na ko te ko am ci ndigalu am ko ci ndigalu sëriñ Touba sëriñ Mountakha Mbacké bis bi nga xamante ni moom lañ doon teg xeer wii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 di am mbégte ci ndigal li am ci suñu kilifa sëriñ Ahmadou Mbacke moom sëriñ Mouhamadou Karim Mbacke di xalifaam di ko sant bu baax ci taxawaay bi mu taxaw ci bis bi lépp loo xam ne moom la ñuy wax fii tey ci kàddoom lañ koy waxee ak ndigalam ndax comité organisation bi ñun dañ koo dañ dañ cee bokk ñu sant ñu sas ñu ci ñu ci bay yàgg cee liggéey kon bu ñu agsee fii kon war nañoo leeral lu bëree bëree bëri ci liggéey bi ñu dénkoon liggéey bi nag wax dëgg bi màggal gi weer wi teroo sëñ bi woote fii ci kër gi wax ne damaa bëgg ngeen def ko ni ko daan defee foo xam ne daa ngeen fa dem jox naa leen ndigal ngeen dem ci sama tur joxe sama kàddu ma ànd ko sëñ Cheikh moomu ñu ciy liggéey di wax ne mbooleem autorité yi fépp foo xam ne dem nañu fa wax dëgg gis nañ ne ñoom wuyu suñu sëñ bi wuyu suñu rafet ndax ku xool ci ginnaaw da gis sous préfet bu ndaam ak sous préfet bu Kayal monsieur Mar ak monsieur ñi ngi ñëpp ñu ngi toog gouverneur moom moom sëñ benn lañu ñu rafet lu lépp loo xam ne joxe na ko ci bis bi lépp man sëkk ñëpp ñëw nañu kon nag di sant ma monsieur euh, Pape Diop. sëñ bi da ko woon kon bu ñëwee yendoo moom ci bis bi sëñ bi fa am sant ko gërëm ko ndax du rafet la li ki teg maître Madické Niang di xaritu sëñ bi yónnee na fi ci sëñ bi dafa génn dafee nekkut di wax ne honorable député Serigne Cheikh Mbacke Bara Dolly groupe parlementaire parti démocratique sénégalais délégation ñi ngi ni toog Mame Mor Sarr ak Massaer Kane ak ñi àndal ñëpp ak si Abdoulaye Dieng ak Mbaye Thiam ñëw nañ ak soxna Adji Mariam am di wax ne Cheikh Abdou Mbacke Bara Dolly président euh, di euh, bokk gis-gis di honorable député moom it dafa ne ci xat-xat ndakaaru ku ne xam ne amuñ jot fa yi waaye yebal na fi délégation ma délégation ki sëriñ Ahmadou Mbacke mi xalifa bi ah wax ne kon ñooñu nga xam ne sëriñ Fallou Mbacke président conseil départemental bu Mbacke ñëw na fi siyaar sëñ bi ñëw fi ñaari ñaari anam ci sëriñ Moustapha mu sëñ Mbacke ak ñëw fi ñëw boppam ak digganteem dëkk bi di wax ne mboolem ñi nga xam ne waxoon leen bis bi daal sëñ bi mi ngi leen di leen gërëm di wax ne sëriñ Afe mbàkke mi nga xam ne moo ma jox kàddoom ci kër sëriñ Ibrahima Mbacke ñurul ma teewal ko fii ci kër gi moo ngi sant sëriñ Ahma bu baax ci yaaral gi mu yaaral mboolem kër yi ku ne gis sa bopp sëriñ Moustapha moom sëriñ Baara mi ngi ñu toog di suñ mag di ko xam ne nii kuy defar ci kër gi la ñu nangu ko ndax lépp moom it day rafetal bëgg lu baax sëriñ mu sëriñ Abdou Karim ba ki sëriñ Fallou sëriñ Cheikh mboolem ñi nga xam ne ñoo bokk bàyyi te bëgg rek dëkk bi kanam ñun dara ñur ñu dëkk bi ndax dëkk bi ñun ko moom duñ bàyyi kenn di ko yàq te ne fi lu fi defaru ñoo ko war defar sëñ bi moom li muy def mooy xool ak joxe ndigal kon nag ñi nga xam ne ñooy xale yi ni nga ni nga xam ne suñu mag ñi noonu la ñu gisalee nañ fexe bu ñu am gàcce seen kanam dëkk bi nag sëñ Mouhamadou Mourtala mooy chef de village bi daa am ngànt moo tax teewu fi kon tey dañuy waxaale ci kàddoom mbooleem ñi nga xam ne woo nañ ci magal gi wuy si nañ sëñ bi wuy rafet rafet rafet mbokki taalibe yi nga xam ne ñoo aju ci kër gi ñu ngi leen sant di leen gërëm seen taxawaay ku ne xam ne magal gi ñu ko daan defee ci pénc mi def cérémonie officielle waaye xat-xati jamono moo tax sëñ bi ne moom du woote mukk cérémonie officielle ci pénc mi te waa kër sëñ Tuubaa yi kenn defagu ko moo tax ñu def ko nii rek waxtaan ak mbokk yi wax leen fi ñu toll ak jumaam ji mu naal muy naal wu rëy rëy woo xam ne képp ku ko gis xam ne kii ku am yéene la kon nag moom nañuy ñaan sëriñ Tuubaa may ko kàttan dafa ko jàmm ak xéewal ba mën ko ubbi ci jàmm jumaa gi nag lu ko ñor la mi ngi ci woo bokki jullit yëpp bokki taalibe yëpp ak képp koo xam ne yaa ngi wax ashadu an laa ilaha illallah wa ashadu anna muhammad rasulullah kon nag ñoo ngi sant di gàttal foofu rek di suñ ax Ahmad mu yàgg fi lool te wér yàgg woote bis bi ñu yàgg ko wisi ak mbooleem sëriñ Xaadim Mbàkke mi nga xam ne mooy porte parole am daan teew fii am ngànt suñ baa ngi koy ñaanal mooy mu am tawfeex ba bisam bii di ñëwaat yàlla may ko tawfeex ndax moo sànni kàddu yu am solo fii ñëpp di ci am ab yóbbal waaye nag ñoo ngi ñaan suñu borom may ñu gudd fan ak wér ñu ceg ko at yi jëm ba yi nga xam ne mooy mbas meeg ndog yëpp jeex ci jàmm ba nit ñi amal tawfeex mën na waxtaan ci jàmm wasalaamaaleykum wa rahmatullaahi maa ngi leen di nuyu di jiital si nuyoo bi Serigne Ahmadou Mbacké waaye tamit di yëkkati nuyoo ak ziar bu sell di ko teg ci loxoom mu jotalil ko suñu wéyjur sëriñ Muntaxa Mbàkke di ñaan yàlla may ko gudd fan bu ànd ak wér ba lépp lu mu naal ci yoon wi yàlla mi dara may ko mu mën koo yeggali ak sagoom yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def sëriñ bi maa ngi lay nuyu tam di jël sama nuyu bu sell di ko teg sa loxo ak ziar jagleel ko njabootu sëriñ Modou xari yi fi nekk yépp tey sax bi may ñëw dama jàppoon ne comme yow ni nga ko bëggee rek jamono toll foofu dañuy ñëw rekk nuyoo ziar tatagal la ci bés bi nga yeewi ñu ñu doll sunuy yitte waaye jàppoon naa ne sax xëj na du fi fi jël kàddu publiquement waaye looloo tax sax bi may ñëw délégation bi nga xamante ne bi waroon naa ànd ak moom bu doon cérémonie officielle boo xamante ne bi nan ko daan defee lañ koy defee moo tax ànduma ak ñoom moo tax rek ma ñëw ànd fi ak sama adjoint Mouhamed Mansour ñaa ñëw fekk fi sunu collègue Cheikh Ñing nga xamante ni bi seen relation maanaam euh, fësal na ko moom waaye yow it si sa wàllu bopp fësal nga ko euh, sëñ Moustapha Diaw moom duma nangu mu doon sama si sama délégation tey ndax tey moom dafa mel ni yow yaa ko gën a maanaam yaa ci yaa yaa ëpp ci moom dogal kon dañ la koy bàyyee di la ziar di la tatagal ci bés ci bés bu sell bi di ñaan yàlla mi dara yàlla na yàlla def nga yàgg koo jiite jiite njabootu sëriñ Modou Khary Mbàkke bi yépp ñun nag wax dëgg fa yàlla xëñ na man bi ma fi ñëwee yàggul waaye jotaay yin mas a am rek man ak yow dama ci gis ay jàngat yu bari yoo xamante ne bii daanaka ay màndarga lay doon ci kilifa ni ñu bëggee mu taxaw en bu fekkee ñun nga xamante ne bi ñu ñooy yëngu ci wàllu administration ndax bu ma indee ay seede rek bu yàggul am na fi ay liggéey fi waroon a def fii te ñépp xam nañ ne tuubaa dëkk bi dafa am baat koo xamante ne bii daanaka doo jëf te yëgaloo ko waaye tamit bu la teree nga bàyyi te loolu mooy dox fii ci Touba pofti lépp loo xamante ne bi état bëgg na ko na fekk mu ànd ak maanaam loo xamante ne bi yow nangul nga ñu ko ba liggéey bii nga xamante ne bi ñu ngi koy liggéey Touba te mu jëm fii si dëkk bi yàlla def nga dimbale ñu si dimbale boo xamante ne bi yëg nañu ko xam nañu ne boo ci dugalutoon sa loxo xëj na liñ ci am sax duñ ko ci am kon nag loolu ñu ngi la koy gërëmee bu baax beneen jàngat bi mooy dañ dama ci woote réunion yow fii ci dëkk bi loo fi bëgg moo fi am loo fi tere du fi am waaye ma fàttali bi ma wootee réunion nga mënoon a ñëw yow kenn ne nii laa ko bëggee waaye ba ngay ñëw danga nga ànd ak njabootu sëriñ Modou Khary yépp mu mel ne dëgg la baat bi yaa ko yor waaye dafa mel ni yow lépp looy def danga bëgg njabootu Serigne Modou Khary yépp bañ koo umpale loolu nag yaakaar naa ne màndarga la ci nit koo xamante ni bii wax dëgg fa yàlla nit ku baax la kon nag sëñ bi yow sa nekkin fii am na njariñ yàlla na yàlla may la gudd fan bu ànd ak wér lii nga xamante ne bii mooy li nga sumb fii muy jumaa ji yàlla nañu toog bés bañ koy ubbi ci sa kanam yàgg yàlla yàlla nangu ci yàgg jiite li ci des rek mooy di la jottali nuyoo ak ziyaaru ministre de l'intérieur Antoine Félix Diome waaye tamit président de la république bi nga xamante ne bii ñun ñoo ko fi toogal fii ci gox bi di ñaan nga ñaanal leen yàlla wattu leen ci liggéey bi nga xamante ne bii moom la ñu yore yàlla may leen ci ndam waaye lii nga xamante ne bii tamit moom la ñu dëgmal muy élection yi te ñëpp xam ne élection xëj na mbiru xëccoo la te xëccoo mën na jur coow sëñ bi ñu ngi la ci yaakaar nga ñaanal ñu yàlla ba élection yi ñu dëgmal ñu def ko nan ko daan defee maanaam def élection dimanche. xëy altine ku nekk dellu sa yitte waaye tamit nga ñaanal ñu déwén bu soobee yàlla ak yonent bi ñu delloo yëf yi fan fa mu nekkoon maanaam lu mel ne bés bii bu ñu koy maanaam taxawal na mu daan mel balaa jamono di soppeeku mu delluwaat foofu mooy mbas mii nga xamante ne bi ñaari at yi tax na àdduna bi xawa jaxasoo yàlla teggil ñu ko te ñun nag gëm nañu ne lu dul ñaan mënu ko fee dindi te alhamdulilah sëriñ Muntaxa ci boppam ju wane na yoon bi ndax bésu xasida yi mu fi woote woon ginnaaw bi lañu gis ne kaay yi wàcc na waaye tamit ndox mi mu ci boole tam bëri na donc ñun amul lu dul lu dul ñaan kon nag ñu ngi la ciy yaakaar Mbàkke nga defal ñu ñaan ba déwén bu soobee yàlla réunion yi ñu war a def di ko waajal ñu def ko waaye tamit Euh, cérémonie officielle buñ buñ ci war a def ñu def ko naka lan ko daan defee donc loolu am nañ ci yaakaar bu baax ndax euh, yàlla euh, nee na ñu ñaan ko rek mu may ñu te mm, jullit du def lu dul yaakaar nit koo xamante ni bii gëm na ne yàlla sunu borom am na maanaam lu mu ko jagleel mu ñaanal ñu te loolu am nañ si yaakaar ne bu boo ko defee yàlla mënuñu see may ndam kon nag mbokki Touba Pofdy donc di leen tatagal yéen ñëpp ci bés bi di naan yàlla yàlla nañu ko teewaat ñun ñëpp déwén te kenn bañ a wuute kàddu yi mënut a gudd sëñ bi loolu dong laa amoon si li may wax di leen sant bu baax di leen gërëm wasalaam mawlana muhammadin makin wa ala alihi wa sahbihi sawi ridwani wa tamkin amma bahdu mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu nuyoob lislaam muy asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. di nuyu ci turu Serigne Ahmadou Mbacké mi nga xam ne tey jii moo tooge jataayub Cheikh Mouhamadou xari Mbacké fii ci Touba Pofdy Darou Khidma ànd ak njabootam gépp ak rakkam yépp ñu am bis bu màgg bi doon ko taxawal at yépp di ko defe nam ware ba yàlla dogal at yi ñaari at yi ñu weesu gàllankoor yi am ci àdduna bépp gàllankoor ko ba defe ko niñ ko daa defee waaye amoon na fulla yi nag moom du ko du ko du ko du ko weesu benn wen su ñëwee itam donte mënu koo defee ni mu ko bëgg a defee dana ko màndargaal màndargaal gi nag mooy fexe ba ñu def ci li ci bëgg a def ak donte duñ ko fésal at yëpp noonu la koy def woote ñu jàng alxuraan jàngi kaamil def ay berne def ay salaatu ala nabi bokk yi daje siyaarente moo taxoon euh, cérémonie officielle bi nga xam dañ ko daa def ci pénc mi nga xam ne saa yuñ masaa màggal ba euh, heure bi jot bokk yëpp ak dëkk bépp ak autorité yëpp daje ñu def ay waxtaan ñu waa dëkk bi génnee seen doléance yi nga xam ne moom lañ am jëbbal ko autorité yi ñu jàllale ko ca kaw loola dañ ko daa def muy doon cérémonie boo xam ne bu yi gën a ràññeeku ci Touba ci la bokkoon kon bu jamono demee nii ba nga xam ne dañ koy tënk rek moo tax ñu indi ko ba ci biir kër gi rek ngir bëgg màndargaal ko waaye doonut loo xam ne cérémonie bu officielle la kon ñi ngi sant bu baax ñi nga xam ne ñooy autorité yi nga xam ne ñoo wuy si wooteb sëriñ bii di sant bokk yëpp di sant politiciens yi ndax ñoom ñëpp wax dëgg ku ci ne ñëw nga yàlla ak wëllëre ak yaakaar ju tax ñu ñëw fii ngir e, teewal seen bopp ñiy teewal seen bopp ñiy yónnee comme ni ngeen ko waxee am na ñoo xam ne ñëw nañ teewal seen bopp ñoo xam ne dañoo yónnee kon ñoom ñëpp maase nañ ci ne ku ci ne andi sa délégation ñëw na ñëw ci sëriñ bii saafoonteeg moom ngir yàlla rek ak yaakaar ak xam ne lu leen war la kon ñi ngi sant ñëpp ñi ko def nga xam ne ci parti politique yi lañ bokk sëriñ bi mi ngi nuyu ñi nga xamante ni ñooy ay bokkam bokki lislaam bokki diine ji bokki deretam nga xam ne moo ñoom ñoo bokk bis bii muy rakkam yi nga xam ne ñoo topp ci gannaawam di njabootu sëñ Madou Khary mu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm ngir ñoom day saa yu leen woowe wax na ne saa yu leen woo wala mu digal leen te li mu leen di digal lépp itam ñu bokk liggéeyal sëñ Madou Khary delloo ko njukkal rek la leen di wooye waaye woowu leen ci soxlay boppam ku ne xam na ne sëriñ Ahmadou soxla su boppam du ci woo kenn xanaa yàlla boromam kon lim ñuy woo rek mooy li nga xam ne moom moo ñu na ko bokk te bu ko neexoon it sax mën na koo bañ a defee noonu ndax kilifteef fii ci yoonu murit am na nu muy doxe waaye moom yàlla dafa def muy ku yaatal mbiram saa yu dara jógee tem xam ne amoon na sañ-sañu def ko te kenn man ko bañ a yëg wala nu ko neex la cee doxee du def noonu day woote jataay neen nu ci baax nu ci gën nañ ko doxale noonu ku ne wax sa xalaat te loolu mooy yaakaar naa mooy yaatal mbir kon ñu ngi koy sant bu baax ci yaatal googu mu yaatal njabootam googu ba ku ne mu cëral la ñu ngi koy ci sant bu baax nee na itam mi ngi sant taalibe yi nga xam ne ñoom la bokkal suñ mbaru xari nga xam ne bu leen yónnee ñu dem bu leen digalee ñu def bu leen laajee ñu joxe nee na mi ngi leen sant bu baax ndax nit bu leen yàlla boolee te yàlla rekk tax te diggante tëriñ akub taalibe def defub sunu borom la rek yàlla la soob nit ki nu mën a mel dañ koy yilif yàlla la soob soobit nit ki nu mën a def nu mën a mel day yilife kon loola dogalub sunu borom la waaye du ngëneel lu dox ci diggante ay nit ba tax kenn war a topp kenn def defub yàlla la kon loolu lépp nee na xam na ko te mi ngi bàyyi xel nee itam Eh, yóbbante yi nga xam ne dina ko yóbbante ci état bi ci autorité yi nga xam ne ñoo fi teew tàmbalee ko ci sous-préfet bii nga xam ne mooy monsieur Mar teew fi nga xam ne kàddu gi ci lu ñuy yóbbante ci loxo am lañ koy jaarale nee na moom amul benn bëgg-bëgg lu dul bëgg-bëgg mbooloo mi lenn loo xam ne da koy bëgg lu jëm ci boppam amut li muy bëgg rek dëkk bi ak njaboot gi moo tax mu di ko bëgg te loolu nun ñi mu jaboote xam nañ ci dara mësta bind benn lettre di ko yónnee benn autorité di ca ñaan dimbal déedéet musta am lu mu cay waxit lu njariñal dëkk bi lay doon ak njariñal njaboot gi kon nag kooko mat na kilifa mat na yi mën naa yilif ñam nekkal te it nun nangu nañ mu yilif ñu kon ñu ngi koy sant bu baax di ko ñaanal di ñaanit liggéey bii nga xam ne tàmbali na ko muy liggéey jumaa jii te mu am ci yaakaar lool ci am ci yitte nañ ko ñaanal mu àgg ci kanamam ba mu sotti ci kanamam ba mu am ci lim ci bëgg ba naal yeneen liggéey yàlla mën na ko yàlla na ko def ci barke lislaam di ñaanal ñi nga xamante ni ñooy jàpp ci liggéey bi itam ndax mbir mu ne ña koy doxal ñooñu yeeyoo nañ ak ñaan te bi mu tàmbalee ubbi projet jumaa ji ba tey ni ñaa ngi ciy dugal seen alal di ci dugal seen xel di ci def loo xamante ni moom jàppoo na ne loolu sax warta mën a nekk tàmbalee ko ci bi mu fondement fondement bii adduna bépp di ko yéem ku ne ne ko lii nga fondement warta mën a mënta nekk man mii nga xam ne man rakkam laa bokk bokk naa ci ñi ko waxoon ne ko lii moom du yëfi nit mu ne ma sëñ Tuubaa daal mën na lépp kii ñu koy defal itam mën na ko la ndax fan maa waxoon ne ëpp na un mètre un mètre cinquante jëm deux mètres loolu kenn mësu koo gis waaye yàlla defal ko ci tawféex joo xamante ne nii te ragal naa ne tawféex ji mu ko ci defal dana ko ci defal ju gën a kawe loola bi ñu jubee màggal gi mu ne daal da ko bëgg a sëkk yàlla defal ko ci tawféex ñu sëkk ko ñu def ci lu mat trois cent camions yu mag nga xam ne loolu kon liggéey la woon boo xam ne jàppul woon ne loolu mën naa nekk yàlla dimbali ko moom am sëkki ko ni mu ko bëggee sëkk li wër jumaa ji yëpp ci kanam ak ci gannaaw jàpp naa ne la def loola nag dana àggale jumaa ji jumaa ji moom dana àgg coleet te ñu ngi ñaan ci barki sëñ Madou Khari liñ ci am nga xam ne dañ ko ci ñaan moom ñu am ci ma Madou Khari yàlla defal ko ci lu kawe njortam ba mu àggee ko fekkee ko ñëpp mook taalibe yëpp mu julli ko ñu santante ba mu yeneen liggéey ñu ngi koy ñaanal nee na mi ngi sant rakkam yëpp comme ni mu ko waxee kër yëpp tàmbalee kër sëriñ eh, Amidoun mi nga xamante ne ni ci taawi sëñ Modou Khari lay bokk te doom ju mag nekk nii di sëriñ Modou moo ki rakkam ñëpp sëñ bi nee na mi ngi leen di sant. mi ngi sant waa kër sëñ Ibra njurul sëriñ Afiya ne ca bopp ba moom bi ñu ngi koy sant bu baax a baax moo ki rakkam liggéey bi luñ ko ci digal def na ko luñ ko ci luñ ci bëggit ànd na cee ñun lépp ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm. di sant baa kër Baye Abdou Karim ci tàmbali Serigne Khadim mi nga xam ne moo fi nekk ndax sëñ Abdou Khadir mooy kilifa gi waaye dafay nekkut sëñ Khadim moo ko fi wuutu nekk fi ak sëñ Moustapha ak sëriñ euh, Fallou ñoom itam liggéey bi sëñ sëñ Ahmad nee na lépp loo xam ne digal na leen ko ànd na ko ak ñoom kon ñu ngi koy sant bu baax a baax ak njaboot sëñ Baara gii nga xam ne mook ñoom ñoo bokk sëñ Baara muy seen mag nee na mi ngi leen di sant bu baax di sant itam waa kër bàjjan Bousso yi nga xamante ni njaboot sëñ Badou Khary ku jigéen gi seen doom yu góor yi fi ne sëñ Alaaji Mbàkke mi ngi koy sant bu baax di sant waa kër sëñ Abdou sëñ Miftaax yi nga xam ne moom itam soxna Bousso Mbàkke mooy ab taawam yàlla dogal ay doom ñaari doom dafi bàyyi ñoom itam noonu mu wax ci ñeer la wax ci ñoom ñu leen di sant bu baax di sant su waa kër maam Faati Mbàkke mi nga xamante ne nii euh, sëñ euh, soxna Sooda Njaay ala ak ak alaajiloo ñoom it ñoo ko fi nekkal mu ngi leen di sant bu baax waa kër soxna ami nee na mi ngi sant soxna Faati Mbàkke mi nga xam ne moom la fi bàyyi moom itam muy jàmbaar ànd takku ànd ak moom ci lépp lu mu ko digal nee na mi ngi sant itam waa kër baara yi nga xam ne soxna Lootu mi nga xam ne moo ci mag moom mi ngi koy sant bu baax ba tey li ma doon wax rek nee na mi ngi koy sant ndax mooy taaw bu jigéen bu mag ci taaw yi lépp loo xam ne ànd naa ak moom di ko eh, ci liggéey bu mu ànd ak moom it nee na li mu ci war a def lépp mi ngi ko ci def màggal gi bu jotee day ànd ak waa Taïf gee mu nekk fa ko yàlla yóbboon mu di fa liggéeyal yàlla njaboot ga mu fa nekkal ànd ak ñoom ñëw ànd ak di ko jàppale ci bis bi nee na moom mi ngi koy sant bu baax di ko gërëm di si gërëm ñëpp ñi nga xam ne bokk nañ ci liggéey bi sëñ Mokhtar sëriñ Maamun soxna Maam Asta ñoom ñëpp nee na mi ngi leen sant bu baax di leen gërëm di gërëm itam autorité yi comme ni ñu ko waxee léegi rek buñ ci fàttewuñ ci kenn Cheikh Baara Doli léegi la fi yónnee ab délégation boo xam ne ngumb mi moo ko jiite ànd ak soxnaam wax ne dafa nekk ndakaar ci assemblée dañu am ay programme ndax moom moom président groupe parlementaire bu PDS moom léegi la fi yónnee ab délégation léegi lañ nuyoo ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm ak Cheikh Abdou moom comme ni ngeen ko limee woon léegi rek Cheikh Abdou kii délégation bi ñëw léegi rek limaale wuñ koon waaye ñu ngi koy gërëm di ko sant jàpp gi mu jàpp ci màggal gi Euh, euh, monsieur le préfet li ñu lay li ñuy doléance bu ndaw lañu am mooy rek ndox problème mu ndox am na ndax dëkk bu tool nii mbooloo mu bari na fi mu forage bi nga xam ne ci lañ branché in weeru yàllaa ngi ne benn toq ndox toq ci dëkk bi loolu jaaduwut du lu yell du lu war waaw kon loola ñu ngi ko ci ñu ngi leen koy wax di ko jooytu nañu dimbali bañ am forage te loola lu mën a nekk la ndax mbooloo mi laaj na ko dëkk bi laaj na ko te sëriñ bii ay nawlem dong lañ koy defal ndaxte xëy na ak dalam akub yaram ak jàmmam moo tax du jàmbat ci rajo yi du wax dara kon nañ ko dimbali ba mën a am forage boo xam ne njaboot gii ko yaakaar dinañ ci mën di soqaliku ndax nit bu leen yàlla boolee danga koy sagal da koy sagal sagal gi nag mooy weesuwut fexe ba ak njabootam bañ koo yàpp bañ koo bañ a tas seen yaakaar kon loolu rek mooy li am solo dañ ko ci jàppale bu baax a baax a baax bu baax a baax a baax nañ ko ci jàppale ba mu am ko bi ci tegee itam loolu du ma leen ci interpellé waa man mm, waa kër waa waa xilaafa gi ak ñi nga xam ne ñoo yore dëkk tuubaa gi laa ci interpellé mooy affaire làmp solaire yi nga xam ne dañ cee war a am mu teggi ñu teggin woo xam ne teggin wu ñaaw la dama yàlla bal na ñaaw gi mooy indi nañ ko Touba andi ko ba Daaru Rahman jële ko fa andi mu romb ñu ñu dem ba Taïf romb ñu dem ba Bayla mu romb ñu wàññi ko waat fu ne mu jaarale ko fa dëkk yi ñu wër yëpp ñu am ko lamp yi amuñu ko. te boo demee ba Fuuta ba maatam ba Kédougou man tournée bi ma doon di barki dem rek bi ñu waaj a màggal fu ne wër naa ko ci réew mi dëkk boo dem un kilomètre dañ la koy gàttandoo ku Pontum Malem Ñaani Tamba foo dugg ba Koccaari da koy am. lamp yi du don boo xamante ne sëriñ moom état moo koy joxe. ci masul dëkk bu ne da ko war a am kon doonul loo xam ne dañ koy sédd ay nit ñu naan ñenn ko war a moom wala ñenn ko war a moom dañ cee war a am comme ni ko ñëpp amee nañ ñu jox suñu wàll ci làmp yooyu kon ñu ngi koy demandé ci yéen waaye ñu koy demandé ci ñoom ñi nga xam ne bu ñu ñëwee dañ leen di jox yëpp rek dañ leen mi ngi nii ñoom ñoo koy séddale nañ ñu jox suñu wàll loolu mu interpellé wu ma ñoom laa ci interpellé kon loolu daal mooy doléance yi nga xam ne amoon naa ko war koo sànni moom di ñaan yàlla nag bu baax a baax a baax lii ñu daag koo def dem def ko at yu baree bari ci kanam sëriñ Ahmadou mii mu mu mel noo xamante ne nii nag dana soppiku ba yii yëpp am cérémonie bu baax di am comme ni ñu ko daa amee ndax cérémonie benn buñ ci autorisé amut di ko tuuba comme tuuba defu ko rek ñun duñ ko def lii day kàddu yoo xam ne ku womboole da nga daje ñoom wax leen jokkante ñoom sant leen nee na mi ngi sant taalibe yi itam ndax lépp loo xam ne jàpp na jàpp nañ ci ñoo fi nekkoon ba fi dara nekkut kon ñoom it mi ngi leen di sant bu baax a baax di sant gërëm presse bi di sant ñëpp di gërëm ñëpp bañ a guddal asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. mal nga leen ci xarnu bi yaaraw ña daa janoog rasul ku sopp sëriñu sëriñ Moodu Xari Mbàkke ña daan janoog rasul ngir yaa liggéey ba am wusool yaaraw ña daan janoog rasul ngir yaa liggéey ba am wusul ba def xalifatu kawe nga mboolem xarnu bi yoon wa mu aw baraw bindeefi ba def donoy ngën ji mindeef mane su ko xamal mindeef jommal na mboolem xarnu bi diggante mulkook malakoot ba sar ci pey kenn mus la boole seeni mboot lu dul bamba bàjjob xarnu bi aras la daan giseeg boroom kursu yu lay xamee soloom diiwaan la daa faley moroom di folli seefi xarnu bi sëñ bamba moom lañu may nuurul jalaal dellu ko may nuurul jamaal mu boole ko serrul kamaal leeram ya dar xarnu bi gaaleer caley jañee ci beel gaaleer caley ñoddey nganeel kamaal gaalay faley meteel seexal na mboolem xarnu bi yàlla la daa sukkandikoo yónneen la daa jottalikoo jibril la daa dimbandikoo ba jotti mbooti xarnu bi téere lay wettalikoo ku sopp baay seex muhammadul mustapha mbàkke téere lay wettalikoo durus ga lay moyandikoo pexe ya noon ya daan jagoo bëtëna nooni xarnu bi dunyaa da ko wanoon gannaaw te faale yi la mu laaw jublu ci yàlla ni njanaaw wàkkiir lu dëddu xarnu bi bëggul ngalan bëggul médaay bëggul lu tubaab di jaay jaayante naag yàlla saawaay gañe mboolem xarnu bi Cheikh Bamba yaa bari njariñ fariñ nga wute nga këriñ sëriñ si yëpp yaa di seen sëriñ yaa a leeral xarnu bi sëriñ si ñoom ñoo doon fatafoor sondeel du mel na lumière jant la moom faw xana weer leer yëgandoo ci xarnu bi nun soobu nan la jàlle nu waay mbàkke bul dem bàyyinu yowmal xiyaam yóbbaale nu ci yóbbu mboolem xarnu bi lu baax du baax ba jàll baax waaye sëriñub sëriñ Moodu Xari Mbàkke moo weesu baax baax a ngi yem ci xotti baax baaxaale gaay xarnu bi waaju la sopp daldi di waa waaju la weddi dootul baax waajum gërëm day gën a baax waayo ko war na xarnu bi noppalu jil nag ca aliin yàlla gërëm na laak lamiin yóneen gërëm na laak ñeneen ak xulafaawu xarnu bi ak mursaliinaak lanbiyaa ak taayibiinaak lawliyaa jinne ya ak malaaka ya gërëm nañu Seex Bamba ak waa xarnu bi yoral sabong te dem fanaan diggante kawsara ak jinaan nottil nag te lekk nag te naan jaajër defal nga xarnu bi barki borom sëriñ Modou Khary Mbacké noo ngi ñaanal sëriñ bi mu yàgg fi lool te ànd ak yal na sa borom yàggal ko fi mu dunda téeméeri at yu tàmbali tey te nu ànd ko moom ba lim yéene liggéeyal sëriñ Touba yéene koo liggéeyal sëñ Modou Khary yépp mu ànd kook njabootu sëñ Modou Khary gi yëpp defe ko nu mu ko soobee barke borom tubaab noo ngi ziar bu baax a baax sëriñ Mouhamadou Moustapha Ndiagne sëriñ Cheikh wax naa ko léegi sëñ Moustapha dañoo daje Côte d'Ivoire en 2007 mu def fa lu am solo xam loo xam ne lu mat di wax la. moo koy gënal. najaani allahu almukarimu samad ناجيا بكواني الكمال ناجاني الله المكرم سمر تناجيا بكواني الكمر وجعل الأكرام أنفع الكرم ودرر بخير رد لنسرم أسأله كونتي الخسيدة غارحة لحادة مفيدة يا حي يا قيوم صل بسلام على الذي جاء بأحسن كلام على الذي جاء بأحسن كلام صل وسلم والتقبل ذا الكلام من على خارج الحروف بما يفوق ظن من معروف لناظم الحروف خلد ربا يا من كفاح ذا الحرور والنبا ولي يا رحمن يا رحيم يا خيو يا قيوم يا مكرم يا ناجاك عبدك الخديم ذا السلام مسلما على مزحف الحلا ناجاك عبدك الخديم ذا السلام مسلما على مزحف الحلا ناجاك عبدك الخديم ذا السلام musalliman ala musaxsi lxula barke borom Touba Serigne Mountakha yàlla na fi yàgg ak rakkam ji di Serigne Ahmadou Mbakke pof di Mbakke maa ngi ñaan jumaa ji yàlla na ko ubbi ni ko sa rakk yu baax waxee te ñaana la te yéene ko maa ngi ñaan ci darajay wakaana xan bii yàlla nga ubbi jumaa ji te nu ànd ko ak yow nag te bu la dara dal bul soox bul jabet bu la dara jot yaag sa rakk yëpp ñu ànd ko ci barkeb sëñ Touba kon bu ko defee sëñ Maxtaar jër jëf ci liggéey bi ñu teewlu xalifa bi mu sànni ay kàddu jërëjëf jërëjëf aouzu bi musulu na seytaane wax aouzu billahi min asheytan rajim bismillahi rahmani rahim sëriñ bi nee na mi ngi leen di nuyu yéen ñëpp. nee na nuyoo bi nag da koy teg ci loxol Cheikh Ahmadou Moukhtar xalifa Daaru Khoudoss. mu teg ko ci loxo xalifa bu mag bi Cheikh Mouhamadul Mountakha Khadimu Rasul. nee na lépp lu def fii. ci ndigal rekk lañ ko fas yéenee def. nee na sëñ Ahmadou na xamal sëñ Mountakha ne ko. ay taalibe de lanu moom la ñu fas yéenee doon it am na nag lu ñuy bëgg loo xam ne nii nee na am na nag lu ñuy bëgg loo xam ne nii sunug taalibe sunug taalibe duñu may duñu may ñu cay xuus waaye nag am na lu ñu bëgg daal am na lu ñu bëgg daal li ñëpp am li ñëpp am te ni yelloo ko te ni yellool ko soxla nañu ko soxla nañu ko kun ci taxaw kun ci taxaw muy lan muy lan ndox ndox ak euh, euh, kii bëgg nañ poste de santé itam. bëgg nañ poste de santé itam. làmp yi itam bëgg nañ ci. ay làmp yii tamit bëgg nañu ci. yoon wii fi ne. yoon wii fi ne. sëñ Cheikh Baara la Matiley moo ñu ko defaloon. sëñ Cheikh Baara Matiley moo leen ko defaraloon. bi baayam doonee xalifa. bi sëñ Sidi Muxtaar baayam doonee xalifa bi. ba mu ko doonagul ko woon. ba ko doonagul nee na mënagu koon làmp lamp yii fi ne. lamp yii fi ne. suñ ko masaana bëgg a joxe làmp suñ ko masaana box bëgg a joxe ay làmp mu ne du ma am fekk puuf di amut mu ne man de du maam te puuf di amul mu ñu defal ko ay làmp defal nuy ñu defal ko ay làmp defal fii ay làmp kon ñun kon ñun euh, dañuy xaar sëñ Touba rek. dañuy xaar sëñ Touba rek. lu jot ci dëkk bi daal. lu jot ci dëkk bi daal. danañu ko defal danañu ko defal. dëkk bu toll ni puuf di. dëkk bu toll ni puuf di. sëñ Modou Khari sanc ko 1914. sëñ Modou Khari sancoon ko 1914. Ndeyam Baye ak Maam Anta Sall benn baay. ndeyam bokk ak baayam membre sali benn baay. muy doomi nijaay doomi bàjjen. muy doomi nijaay ak doomi bàjjen. nuy rootaan. nuy rootaan. loolu rafetul. loolu rafetul de. ah dañ ko mënta laaje ni ko ñeen ñi laaja nag. ah nee na nag dañ ko mënta laaje ni ko ñeneen ñi laaje. ndax ak taalibe. ndax ak taalibe. waaye bëgg nañ ko ñu dimbali lool. waaye bëgg nañ ko ñu dimbali fii ci dëkk bi lool nag. du nag lu ñuy wax gouvernement. dadul nag lu ne wax ak gouvernement. ndax ci sëñ bi lañu bootu. ndax ci sëñ bi lanu bootu. bu ne woon bu leen fi fanaan. bu ne woon bu leen fi fanaan. duñ fanaan. duñ fi fanaan. gouvernement bu ne bu fanaan. gouvernement bu ne du leen fanaan. suñuy bàkk lañ ko jox waaye fii la fanaan. bàkk lañ ko jox waaye fii la ñuy fanaan. kon nag lu nu soxla. kon nag lu nu soxla. ci sëñ bi lañ koy jaar sëñ bi lañ koy jaar. te bu joxee autorité bi ndigal. te bu joxee autorité bi ndigal. nu jotti. ñu jot ca loolee. feeg jumaa ji. feeg jumaa ji. juróom-ñetti kilomètre. kilomètre la. bu ñu demee bay rootaan. bu ñu demee bay rootaan. loolu rafetul. loolu ñaaw na rafetul. daaru Rahman lañ daan amee ndox. daaru Rahman gii lañ daan amee ndox. sancaan yu bare dañoo branché seen i tiwo sancaan yu bare bari dañoo branché seen i tiwo ndox mi yegg seetul ndox mi yegg seetul ba ca des ba ca des sëñ Fallum sëñ Mbàkke soxna loo sëñ Fallum sëñ Mbàkke soxna loo may nañu tiwo bu jóge kër kàbb may na leen tiwo bu jóge fii ci kër kàbb tiwo ba sew ndox mi yegg siwut tiwo tiwo ba nag daa sew moo tax ndox mi ak siwut kon nag bu ñu dee màggal puuf di kon nag bu ñu dee màggal puuf di gouverneur jox jox ndigal gouverneur gouverneur bii joxe ndigal. ñi mu yilif. ñi mu yilif. ñu nuy roñol ndox di ko indi. ñu leen di roñol ndox di ko indi fii ci puuf bi. kon firnde la. loola kon firnde la. ah kuy bëgg dee nag wequ. a ah, kuy bëgg a dee nag wequ. nañu jax daal li nu war a am. jox waa puuf bi li nu war a am. danañu fay lemp ba mat sëkk. danañu fay lemp ba mat sëkk. danañ joxe adde itam. danañ joxe adde itam. kenn dégguñu dul naka sa noonu itam. kenn déggul waa pub ci naka sudut noonu. kon loolu mooy seen doléance. kon loolu mooy seen doléance. ci wàllu taalibe ci wàllu taalibe. beneen wàll bi. beneen wàll bi. bokk ci réew mi. bokk ci réew mi. yilif ay doomu aadama. yilif ay doomu aadama. ñuy dëgmal loo xam ne lu ne mën na caa xaj. ñuy dëgmal loo xam ne lu ne mën na caa xaj. ñaari conseil lañ cee joxe. ñaari conseil dong lañ ciy joxe. politicien. politicien. jarul rey sa bopp. jarul rey sa bopp. li ci ëpp. li ci ëpp. bu ñu demee ba falu. bu ñu demee ba falu. changé seen numéro téléphone. changé seen numéro téléphone. boo leen soxlaa. boo leen soxlaa. ñëw ci secrétaire bi. ñëw ci secrétaire bi. ndax da nga am audience. ñu leen ndax yow da nga am audience. nga ne déedéet. nga ne déedéet. mu ne dafa nekk réunion. mu ne dafa nekk réunion. kon kooku jarul rey sa bopp. nee na kon nag ku mel noonu jarul rey sa bopp. seen bopp lañ fi nekkal. seen bopp lañ fi nekkal. te politiciens yi. te politiciens yi. téeméeru Sénégal yoo gis. téeméeru Sénégal yoo gis. mu ëpp ñu fa 5 wala 6 pour cent. ëpp ñu fa 5 wala 6 pour cent. kon li lii ñu dëgmal. kon nag lii ñu dëgmal. yàlla nañ ci ànd akuk teey. yàlla nañ ci ànd akuk teey. te ànd ci sëñ bi sàmm ñu aar ñu ci lii bëgg a ñëw. te ànd ci ak sëñ bi sàmm ñu aar ñu ci lii di bëgg a ñëw. politiciens yi jaruñu rayante politiciens yi nag jaruñu xeex ak xuloo ak rayante ndax ginnaaw bu la neexee far fii ndax ginnaaw bu la neexee far fii bu la neexee far fee bu la neexee far fee kon kooku bu looy dugg ci mbiram kon kooku mat naa tey de na nga ci tey bu baax na nga ci tey bu baax a baax borom réew mi borom réew mi ki fi yàlla tegandi ki fi yàlla tegandi Macky Sall dama ko yónnee message Macky Sall nee na daf ko yónnee message sénégalais yëpp sénégalais yëpp muy wàlliyu muy wàlliyu ak du wàlliyu ak du wàlliyu ñëpp mooy seen kilifa tey ñëpp mooy seen kilifa tey cër boobu cër boobu war na koo doy war na koo doy war na koo doy kat war na koo doy kat dàqu fee jàng dàqu fee jàng gënu fee rafet gënu fee rafet gënu fi juddu gënu fi juddu yàlla teg réew mi ci loxoom yàlla moo teg réew mii ci loxoom na jiital yërmande na jiital yërmande ci naka ci naka autorité euh, force de l'ordre yi. force de l'ordre yi. muy gendarmerie. muy gendarmerie. police. police. na wax seen kilifa. na wax seen kilifa. nañ def attention ci njaboot gi. nañ def attention bu baax ci njaboot gi. ndax bu dee policier wala gendarme. ndax bu dee policier wala gendarme. dañ ko jox lacrymogène. dañ ko jox lacrymogène. mën na ko sànni. mën na koo sànni. mais ban réel. mais ban buñ ko tiiree ci ci bu peuple. ko tiiree ci peuple bi. bu yàggee peuple ñu kipp. bu yàggee peuple bi fipp. bu ko defee loolu musibaam. bu ko defee na jiital yërmande. na na wax autorité yi. na wax autorité yi. nañ jiital yërmande. nañ jiital yërmande. bu jóg kat. peuple bu jóg kat. ab arme xajul xajul xajul ci arme xajul ci arme ndax arme bi ndax arme bii seeni dooma fi ne seeni dooma fi ne seeni nijaay seeni nijaay seeni baay seeni baay bu mettee bu mettee bu mettee ba metti duñ fetal kenn de duñ fetal kenn de buñ jox ndigal ak kii euh, agressif waaw sëñ bi nee na kon buñ leen jox ndigal agressif ñu ñuy tiire askan wi nañ dal li ñuy wut li ñuy wut nañ ko wuti jàmm nañ ko wutee jàmm am ko ci jàmm am ko ci jàmm buñ watee ba pare buñ watee ba pare ñu joxante loxo ñu joxante loxo démocratie démocratie amut Sénégal Sénégal amul Sénégal ci réewi tubaab bi la am ci réewi tubaab bi la am da ngay gis koo xam ne kii da ngay gis koo xam ne kii jabaram jabaram fee wate fee wate doomam fee wate doomam fee wate fee lay wate kee fee wate ñun nag buñ ko defee ñun nag buñ ko defee ak noonoo ñëw ak noonoo ñëw démocratie fu neex waaye na wate démocratie nag fu neex waaye mën nga faa wate réew mi ku ko yàlla jox ñu jox ko ko réew mi ku ko ko ko waaye buñ taar réew mi waaye buñ taar yi jaruñu ko politiciens yi ko na ngeen ànd ak dal na ànd ak dal sëñ Touba daf daf ni ij'al ruju'i ij'al ruju'i ila xawmi sa'adatana ila xawmi sa'adatana wal takfina yawma jam'il xalqi niirana ba ko sëñ bi waxee ba ko sëñ bi waxee ñibbisi lanu garante woon kon nag ñii fi nekk kas néew dañ ni les institutions dañ ni les institutions loolu mooy lan loolu mooy lan institution yi dafay des. institution bi dafay des. mais nit ñi dañuy jàll. mais nit ñi dañuy jàll. kon nag ku jox kuñ jox kuñ jox kuñ jox baat. kon nag kuñ jox baat. jox la doole jox la doole. na nga xam ni na nga xam ni. da nga tëdd ak sa loxo ndeyjoor. tëdd sa loxo ndeyjoor. avocat du fa ne. avocat du fa ne. ministre du fa ne. ministre du fa ne. directeur de cabine du fa ne. directeur de cabine du fa ne. nakkir ak munkar ñoo la fay. allahu akbar mu nakkir ak nakkir ñoo la fay fekk. la la nga doon def. ni la la nga doon def ngir bëgg bànneexub diw ngir bëgg bànneexub diw loo jublu bu boobaa la nga doon defal loola du la lay sil de buñ koy fudd ndigam du ñëw kon nag nañu ànd ak dal li ñuy wut nañ ko wut ci njekk ak teraanga ak yar sëñ bi nee na lii la ni woon dana ko wax Macky Sall mu joxe ordre police gendarmerie ñuy am dal ci peuple bi fu manifestation amee fukk dee ñooñu kuy layu seen bakkan fu manifestation amee ñett dee. waaw ba kañ. loolu Macky jaru ko. loolu Macky Sall jaru ko. kañ jox réew mi ëllëg jaru ko. kañ jox mi ëllëg jaru ko. bakkanu doomu aadama. bakkanu dafa diis dafa diis. na wax euh, autorité ñu yërëm jaam ñi. yi ñu yërëm jaam ñi. sëñ tubaa moonu nu ndox sëñ Touba nee na woon sëñ ku fi bëgg indi safara. buy tàkk ci kawam la jëm. ñun nag ay taalibe rek la ñuy doon. di wéy ci ndigal ci ndigal sëriñ bi yëngalun dara yëngalun dara farunu fenn ci sëñ bi dal lan far konturun kenn itam mais nag danoo bokk ci réew mi yilif ay doomu di fay lempo di joxe addiya kon nag normal na bu nu amee doléance wax ko kilifa yi ñu jàll ko ci kilifa ga mu jàll ba ca kilifa ga ndax foo ne dama ne dana fanaan ci nopp Macky kon nag sëñ bi neen loolu amul lu mu yóbbante bu lool jàllee nan delloo góorgóorlu nan delloo góorgóorlu ci jaamu yàlla te xam ni kenn ku ne te xam ni kenn ku ne da sa borom da nga wéet ak sa borom ba defe ni yow dong la bindoon rek la bindoon su boobaa su boobaa xaw ma ko day xaw ko day du la ca génne du ko ca génne de dama ko fàtte woon. dama ko fàtte woon. du la ca génne. du la ca génne. bëgg plaisirub nit. bëgg plaisirub nit. tax nga def loo xam ne leer na li njombe la. tax nga def loo xam ne leer na li njombe la. bu boobaa bu boobaa. Ah, dana ko rëccu de. dana ko rëccu de. waaw te te itam. nga dolli tuuti ne nee na mu delluwaat tuuti politiciens yi. ku ñu fal tey. ku ñu fal tey. ngay luye. ngay luye. néegub cinquante mille. néegub cinquante mille. ñetti at. ñetti at. nga yor oto 60 millions. ñetti at nga yor oto 60 millions. foo ko jëlee. gaaw na de moom foo ko jëlee. ah foo ko jëlee foo ko jëlee. duñ ko laaj. duñ ko laaj. nga am këru 1 milliard. nga am këru 1 milliard. foo ko jëlee foo ko jëlee. duñ la ko laaj. nañu enquête loolu ba pare. nañu enquête loolu ba pare. te yërëm jaam ñi. xéewal wàcc ci réew mi xéewal wàcc ci réew mi. li la ni woon. dana ko wax. sa mbokki taalibe yi nag. nan góorgóorlu jaamu yàlla. nan góorgóorlu jaamu yàlla. liggéey liggéey. te maandu. loo am. lu am jàpp ca toog jekki noppi kii sa kilifa kii sa kilifa nga def ko kilifa nga def ko kilifa bu waaw boo lëgee bu waaw boo lëgee koo war yilif koo war a yilif dana dana nangu yilif ko dana nangu ko ci kilifteef suñu muntaxaa la nee na ñun nag ci kilifteef suñu muntaxaa la ne ci ndigalam la ne ci ndigalam la nu ne duñu tooñ duñu tooñ kaas judiciaire vierge lañ yor casier judiciaire vierge lañ yor. mooy mosu mosuñoo dugg kaso. mooy mosuñoo dugg kaso. ndax duñ ko def luñ fay ndax duñ ko def luñ fay dugal. kon nag am nañ kon nag am nañ droit. wax nu xam ci réew wax li nu xam ci réew mi. ndax dafa am ñu boot suñ gannaaw. ndax dafa am ñu boot seen ginnaaw. di leen déglu. kon nañ góorgóorlu bu baax. di jaamu yàlla. jub jub. Euh, maa ngi nee na mi ngi beral cant nag. Serigne Maguette Lo Serigne Maguette dafa jóge Thiès dafa jóge Thiès. te suba toog sonn lool bëgg ñibbi waaye dana day xaar waxtaan wi. nee na mi ngi koy gërëm. suñu mbokk mi mbokk mii ñoom di seen mbokk di sëñ Naar Dieng. di sëriñub di sëriñub sëñ Cheikh Ñing mi. di doomi sëriñ di sëriñub maam Cheikh Issa Dieng. noo ngi mi ngi fasanteeg yow kóllëre. di leen ko seereel Eh, ndax ñëw na fi ñaari yoon. ndax ñëw na fi ñaari yoon. te demagul ci moom. kon lebal na ma ñaari yoon. kon lebal na ko ñaari yoon. nee na mi ngi lay sant bu baax. gannaaw bu loolu jàllee. gannaaw bu loolu jàllee. soxna Musli Jaxate. soxna Musli Jaxate. honorable député la. la. daf ñu may doomam. daf leen may doomam. sama ab jarbaatam moom mii la ko may. ba am na ca doom. daf ko boole ci famille bi. kon bu nuy sant. kon sant. koy sant ci wàll googu. dañ koy sant ci wàll googu. di ñaan yàlla. sàmm ko aar ko aar ko. loolu bi nee na loolu daal la ni woon. jotal ci cant. na ko jotal ci cant. jotal ko sous préfet. jotal ko sous préfet. mu jox ko préfet. mu jox ko préfet. mu jàll ci gouverneur xaritam. jàll ci Antoine Diome. jàll ba ci président. jàll ba ci bi ñëwee fii ci kàmb yi. nee na bi ñëwee fii ànd ak Mbaye Thiam. Antoine Diome ànd ak Mbaye Thiam. nee na ko yaa mi. nee na ko yow mi yaa yor réew mi. fii fii de amul ay làmp daa lëndëm gouverneur ngi taxaw sous ngi taxaw mbay caam mën na ko yaayaru ndox mi mën na ko dañuy rootaan ñoom ñaar la wax loola nee na nag booba léegi forage daal xëddéen ah, léegi nag sëñ Abdoulaat Ka kenn ci nee na kooku day kenn ci ñun ñëw na fi léegi gis naa ko. nee na danoo bokkoon avant ñu koy jox baatu dëkk bi. mi ngi ci bis bu set mi ngi def lu ëpp la defoon. bis bu set mi ngi def lépp la mu defoon. dadaa yónnee. dadaa yónnee. dara du manqué ren nag daa yónnee. ren ñëw ñëw. andi teraanga wan ñu jëmmam kon loolu sant yàlla bu baax. waaw sëriñ bi nee na képp koo xam ne tuddul sa tur itam. xëy na xel du bët waaye day fattu. ak coono yi ak waaye noo ngi sant yàlla bu baax. sous jot li ma sama cant. jot li ma jot li ko ak cantam. ci sa collègue bee. moo ma collaboré gouverneur. waaw. muy benn bakkan. nee na muy xaritam benn bakkan. nee na koy seereel. ab taalibe àqan la. day durus. day durus. di xut di di di kuréel. di kuréel. waaw góor mokkal xasaay du bëree bëri. yoo xam ne mokkalu ko. kon nag mu ngi koy ñaanal dégg nga. nee na gouverneur na nga ko jot ak cantam. nee na la waxoon. def na lépp kon nag damaa bëgg moom itam kóllëre gi mu am moom mu am koog yow wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu nee na jumaa ji nag moom mooy daj dëppam euh, maa ngi nee na mi ngi sant ñëpp. ñi ci def seenu ñaq. ñi ci def seenu ñaq. jiital ci sëñ Ahmadou Mokhtar. jiital ci sëñ Ahmadou Mokhtar. xalifa Daaru Khuddoos. def na ci lu am solo. ak keneen. ak keneen. ak keneen. ak keneen. Euh, ki nga xam ne cant. ki nga xam ne nag mënu ko ñàkk beral ak cant. mooy Modou Gueye mi nga xam ne moo yor liggéeyu kàmb yi. nee na mooy Modou mi nga xam ne yor liggéeyu kàmb yi. Modou Gueye nuyu si fii. nee na Modou Gueye da koo nuyu si fii. gouverneur wax ma ci moom lu baax avant muy ñëw. gouverneur wax wax ci moom lu baax Modou Gueye avant muy ñëw. la ma gouverneur ci moom lu ko ëpp. nee na la ko gouverneur waxoon sax gis na ci moom lu ko ëpp. dama ko ne jumaa jii day. daf dencunu ay milliards. dencunu ay milliards. waaye day boo jàppoon dana baax. waaye day mu génn di ko gunge. mu génn di un million. ne ko maa ko ci tàmbalee. 30 tonnes ciment soo ko sim. 30 màggalee. buñ màggalee naa la ko indil. noonu la ko defe loolu doyu ko. mu ne ko oto bu ñu fi jëlee. di ko jaay. xaalis ba da ko jumaa waaw kon léegi kooku moom. santam mënoo ci ko misaal. yónnee na délégation ci ngoon ak teraanga ju ko mat fekk nee na moom tam mi koy sant bu baax ndax ku la defal lu baax booy sant te tuddoo ko buy lim say noon na ko ca boole abdoulaat kay itam nee na abdoulaat kay def na jumaa ji téeméeru bërigéey ciment ma di ñang def na ci ñaar téeméeru bërigéey ciment kon jumaa ji ku ci def yàlla def ci ku ci deful yàlla def ci sëñ Muntaxa dana woon ku dem ma dem ku demul ma dem foofee la nekk nag moom ba mu koy natt nag dafa natt jox sañ Tuubaa rek keroog bi sëñ Seex euh, Lappe ñëwee nee na mënu ko da koy sëkk mënu ko yàlla jumaa mënu ko ah lii de rëy na nun koy sëkke mu ne ko xawma ko de mu jox ko oto def na ci plus de deux cent camions camion bu ne quarante cinq mille boo ko calculé sept sept millions et poussière la te te dugaloon suuf si kon léegi yàlla koy doxal ak sëriñ bi foofu dong la ko teg sëkk na ko ba noppi dese na ba tey lu toll téeméeri camion kon mi ngi sant yàlla bu baax sunuy wajur noonu lañ ko bàyyee lool jàpp leen ci lu ngeen man ndax loo xam ne boo jàppee mu dem boo jàppul mu dem teg cee jàpp ndax bis boo ko waree yilif xam ni lii kat jàppoon nga ci nee na loolu loolu la yóbbante ñëpp Pape Diop waaw léegi la fi jóge fi la gis naa ko andi na teraanga yu mag mi ngi koy sant bu baax nee na mi ngi koy sant ñaari yoon ba ñetti yoon jàpp na sun rak comme xarit jàpp na sunub sëriñ comme sëriñ jàpp na nañu comme wëllëre noo koy sant ca loola fàttewu ko ñëw na ba këram seet ci ko jël na participation def ko jumaa ji participation def ko jumaa ji nee na danoo mënewul wax nag ndax li ñu gëm rek la ñuy wax bu dee toj tojit lool la ñuy wax wallaay lépp rafet na Mbàkke lépp rafet na jërëjëf sëñ Ahmadou ne ñëpp wax si Ahmadou yàlla fi yàgg te wér tàlle leen loxo yi sëriñ bi ñaan fas nañ ci aajo yëpp nag wax leen amin wax leen amin wax leen amin mbàkke yàlla nga fi yàgg te wér yàlla nga yàgg a woote màggal gi barkeb sëñ Touba amin amin wax leen amin te faj ci aajo yëpp amin barkeb sëñ Touba amin ya rabbal alamin amin amin bi jaahil xaddiim amin amin ya rabbal amin min min min min amin amin amin amin ya jabbaaro albisna minka jami astaari wahum yaanna al absaara waruddaana kaydal fujaari واحتسنا من طرق الليل والنهار إلا تاريخا يرخ بخير يا رحمة إنك مجيب خير بارك سين توبا رايو لين يالا كو تيوي دغن ديوين أنت ربي وغني بمدادي فقصوني لتاريخ